te nit boo demee ba tollu ci degré boo xam ne yaakaar nga ne ñëpp yàqu nañ yaa gën a yàqu hadis boo wax na ko ku ne baaxatul moo leen gën a bon ndax ñëpp de àddina yàqu-yàqu du daj ñëpp nag ab daay lu mu bëri ñax kon ku amul parce que lan parce que dafa jàpp ne jamono bi kenn baaxatul moom moo bon moo tax mbon lay gis ci ñëpp waaye am na ñu baax kon doomu aadama war naa am ay sëriñ war naa am ñoo xam ne daf leen jàpp te yàlla rek tax def leen idole def leen sëriñ def leen royukaay gëmm ci lépp loo xam ni wàllu bachariya la ci ñoom di gis xusuusiye gi yàlla def ci ñoom du leen yemale kenn nag ak lu ko nit mën a wax ñooñu moom du leen yemale kenn waaye ñeneen ñi nag muy xool di seggi waaye ñun foo am sëriñ yaay kan ba doo am sëriñ te yonent sa amoon sëriñ jibril la ko doon jàngal naan ko defal bul def te mu gën jibril foofu sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon doomu aadama foo mu am sëriñ te sa sëriñ boo ko jàppee ba mu jàpp ko sëriñ mu di la xawale ci yoonu yàlla di la jubbanti di la yéege di la nangam def ko sëriñ bul toog gëj koo dégg bul toog gëj koo nemmeeku bul toog gëj koo ziyaare bul bul gëj a wax ak moom sa xaal yi zaahir yeeg yu bitti yëpp te yoon moom laa waree ngaaw du هجر yeggale lu mooy ci yàlla du la du la lor mukk بقدر فنيت jëriñ loolu la bëgg a وقال أنا الشيخ سليم بالقطب قطب الكامل أبو مسيري محمد بن سليمان الجزوري رضي الله تعالى عنه يعلم كم يرم في كتاب الشيخ نو من فضائل خدمة أولياء بوكنا سنجلير لجل ولي اكتساب العلوم فاق خم خمي والآداب أكتجني wa maarifatu rabbil arbaabi ak xam borom borom yi xam ku nekk am nga loo moom ñëpp na yàllaale moom ku moom ku ne yàllaa ko moom wala ismatu ak mucc min zunubi ci yi ci ayib yi wal wusudu ak yegg ilaa allaamil ghuyub bi ci ki xam li fàtt bokk na ci nga ne lii liggéeyal wëlli yàlla di jëriñ mooy kuy liggéeyal wëlli yàlla yàlla daf lay may xam-xam da ngay am teggin da xamit yàlla mi moom lépp dana la musal ci bakkaar dana la solil ayib dana la xeggale ci yàlla na nit sax si liggéeyal nitu yàlla rek dana gis lii lépp ci dundam nga ne ko lan mooy liggéey mu ne wal xidmatu liggéey googu ay ba tey innama hiya nekk moom an nasihatu mooy laay biir laay biir nitu yàlla nag du dem toog mel ni yaa gën a xam di ko digal taalib bi def ak loolu sëriñam laay biir mooy nga jox ko maqaama bi yàlla ci moom yàlla sax dañ koy laay biir waaye laay biir yàlla du dem di waxal yàlla li war a def ak lu mu war a def waaye mooy nga gëm ko ni ko war a gëmee topp ko ni nga ko war a toppee kon sëriñ yi wàccee ko maqaama bi ko yàlla wàcc mooy wàcc waaye ku màgg yow nga wàccee sa bopp wàccuwaay bi la yàlla wàcc wàccuwaay ku suufe ci kanam sëriñ bi wàccuwaay ku réer bëgg ku ko gindi xamut waaye jàpp ne kii xam na mu jàpp ci loxoom rek fu mu ko jaarale mu jaar wàccuwaay ku feebar xamul lu koy faj dem ci docteur bu xam lu koy faj mu naan ko defal lii mu def bàyyi lii mu bàyyi wàccuwaay kuy lab tàllal loxo ku ko xettali du ne ko nii wala naa moom amatul lenn lu mu sukkandiku waa ji rek la yaakaar pour muy xetli ko pour génne ko mu yegg ci dund sëriñ tamit noonu la taalibi war a mel moom bàyyi ko lépp di yaakaar rek moo yeggale ko ci boromam loolu mooy laay biir ko waaye paana sëriñ bi kat moom moom nantewut xamul lu xew xaaral ma waxal ko nii la naa la déedéet wala ianatu ak dimbale ko dimbale ko mooy la mooy saa yi sëriñ bi wootee na nga teew waaye saa yi sëriñ bi soxlaa na nga joxe bu laajtewul sax del def léeg-léeg yaakaar sa xaatir na ah, sëriñ bi war naa soxla xaaral ma dem jox ko dégg nga si kem sa kemtu laay sa kattan ku nekk ni nga amee noonu ngay joxe waaye toog ne du ma joxe dara te yow yaa ngi xam dara kooku kooku ab ab waye di la rek waaye joxeel si sa kemtu laay kattan loo xam du la lor ndax boo joxee lu lay lor nag bu yàggee mbëggeel gi dog sa diggante sëriñ nga al ko waaye del joxe loo xam ne du la lor mais del joxe li toll ni sa kattan di ko ñaanal yàlla loolu ci ndimbali la bokk wal mahabbatu ak bëgg ko ak bëgg ko boo ko xoolee nag bëtu yonentu sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonentu ci yow kaadal muallimu an yakuna nabiyan dégg nga kooku ab yonentu la nga bëgg ko comme noonu dégg nga ndax yonentu li tax ñu bëgg ko mooy bunta bi yàlla ñun yàlla lañ bëgg waaye yonentu daf di bunta bi yàlla ñu bëgg ko sëriñ bi tamit bunta bi yàlla la ndax mooy xammat jàmm bi yeggale ko ba ci borom ne ko xaa anta borom bu ko yaa ngi nii sa borom a ngi wala xuwatu ak mbokkoo sëriñ da koy mbokkoo mbokkoo gi nag mooy nga def ko nawle nawle ak morom du benn nawle mooy moom nga war a roy ni mel nga war a mel li muy jëf nga war a jëf ni muy waxee nga war a waxee yéen a bokk lépp daal ba ni muy soloo sax nga soloo ba ni doxee sax nga di ko doxee ba ni muy waxee sax nga di ko waxee ba ni reyee nga di ko reyee parce que dangay bëgg yow bokk ak sëriñ bi lépp taalib bi sax ba na yàgg naa bi wet jot maqaama sëriñam ba maqaamam sax da koy bëgg doon xam nga nag ko te yeggoo waaye lépp sëriñ bi daal da ngay bëgg meloo ko noonu la taalibe war a mel nga xam ne yow sa sëriñ bu dee daf bu dee buy ree dafay dafay dafay yëkkati loxoom sax yow booy ree da nga yëkkati sa loxo ndax roy sëriñ bi ci loolu qaala wana allah taala kawe innama almuminuun nag way gëm yi ixwatun ay mbokk lañ maanaam ay idole lañ dañoo war royante moo waxaan ko ci benn xadis ne jullit al muminu miratu axi seetu mbokk moom ngay xool ni mel rek nga bëgg ko mel jàpp na yaa ngi moom daal comme nit ak ku nekk seetu bi taalibi noonu la war a mel ak sëriñam wa qaala wana wa toppal sabila man yoon ki nga xam ne ana ba dellu na ilay jëm ci man ñetti laay ñoo leeral wasila guy xeggal nit ci yàlla bu njëkk bi mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci shariatu bi qul in kuntum tuhibbuna allaha allah bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen bu ngeen ma yàlla bëgg leen topp yonent nag mooy jëfee ndigal yi bàyyi tere yi aussi la ñaareel bi mooy jàpp tariqa ma si du ma ko sax kii dama ko waxee mu leex mooy jàpp tariqa tijaan wala tariqa bu la neex waaye tariqa tijaan daal moo ci gën a gaaw na tariqa yëpp gannaaw tariqa tijaan foolee ko ne daa tariqa baax na kon léegi moom boo neexee mooy jàpp tariqa tijaan ak tariqa yu njëkk yi moom boo na laa yeggale ci yàlla waaye léegi xool nañ la xam mooy xaatuma awliya bu ñaareel bi mooy jàpp tariqa tijaan gannaaw boo nekkee jullit bu bëggee yegg si yàlla demal jàpp tariqa bi damay laaj bi rek nag bu bu bu ma xas dégg nga la yàlla na wat dégg nga wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha muñal bànd ak gaa ñi nga xam ni ñu ngi zikkar suba ak ngoon wutuñ si lenn lu mooy bëgg a ci yàlla jàppal laazim tariqa bi tariqa bu loolu la àdduna jege yàlla rek kooku tax jóg egg ci yàlla rek maa lazim yedoona rabboom ñi ngay ñaan yàlla di ko jaamu bil xadaati suba wird laazim ngoog suba teel branche yi angoon wird ngoon ak wasifa yuriduna wajha seen càkkute mooy jëm yàlla ji wala taxdu aynaaka anhum fexeel ba bu leen jéggi turiidu zinata hayaati dunya ngir bëgg rek taari àdduna bokk ci nga xam ne ñoom bëggatuñ jëmm yàlla ji de taar rek lañ bëgg wala tuti man axfalna qalbu an naa ki nga xam ne xolam mënuñoo tudd waxut jëmmam de waxut làmmiñam de am na koo xam ne ma ngay julli ji waaye xol bi tudd yàlla ndax yeggut ci yàlla ma ngay tudd yàlla si làmmiñam waaye xol bi tudd yàlla yàlla ne bul topp ñooñu wa taba hawaaw topp bànneex ba moom ñooñu bu leen leen topp kon ñii yàlla topp loo ci wasila ñaareel bi mooy tariqati ya man dama ko wax mu leer rek mu wax naa ko kii leen demal nii waaye dama ko wax mu leer rek dama la laaj bii rek boo bëggee nga topp boo bëggu tamit nga weddi incha allah fal yu mel ci yàlla moo tax la garanti egg ci ci ci sa nooxe la tariqa bi kon loolu ko tax a jug waaye tariqa bi moom moom foog nga génn ci wér di yeeg si kër yi dem toppi jëmm ja mooy xutbu zaman bi kaamilu asr bi maanaam xalifatullaahi fil ardi foo nga jaar ci moom de mooy baabu laay boobu jaarul doo mën a xegg mu moom la yàlla wattabi sabila man anaaba ilayya léegi nag wird nga ba sa set maanaam jaamu nga yàlla julli nga ba xol bi sell nga layangee ko tariqa ci wird ci naafile yi ah nag foo nga ànd ak góor gi mu heggal la ci yàlla wattabi sabila man anaaba ilayya léegi nag toppal yoonu ko dellu ci man bàyyi na ne ki dellu ci yàlla mooy arif billaahi mooy toppal yoonu bàyyi rek duggal ci fayda man dama ko wax mu leer rek gannaaw boo toppee yonent bi qul in kuntum tuhibbuna laa fattabi'uuni yuhbibkumu laa alquran da nga jàpp tariqa wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajhahu mooy léegi nag wattabi' sabila man anaaba ilayya toppal yoonu baay mooy ki dellu ci yàlla yeex ci tàkk soo ngeen ko toppee nag su ma ilayya marji'ukum yéen ñëpp ci man ngeen dellu su boobaa kon ku bëggee gi ci yàlla ñetti wasila yaa ngi nag jamono bu nekk lépp dana fa feeñ waaye du fës ci jamono yonent bi sallallahu alayhi doon na joxe tariq waaye nag waxtu waa jotagul moo tax fësut comme ni xam ne doon na jàngale fiq waaye fësagutoon nag comme ni fësee ci jamono maa fa sax amoon na naamoon nañu xam yàlla Abu Hurayra jël na ci yonent xam-xam boo xam ne ñëmu ko wax ndax ko waxee gars yi dagg bopp ba jàpp na yéeféer xam-xam boobu ne dama ne du dara mooy maarifatu ndax xam-xam boo xam ne boo waxee ñu dagg sa bopp ci jamono bu baax boobu jamono saxaaba yi du lu may wax ne boo ko waxee yaakaar ne yéeféer nga rek la mën a doon ndax ku wax ne xam-xam yi la wala xam-xam yi waxee buur yi ko yaa ngi wax ne jamono boobu ñoo ñoo jéngoon jamono bu doon wax dund ñett rek moo tax jullit di rey nit te jullit dafay rafet njort ci moromam mooy njaalo xam-xam boo xam ne boo ko waxee ñee da ngaa njaalo amut ak rey nit xam-xam boo xam ne boo xam boo ko waxee ñee da ngaa nit amut ak bokkaale yàlla murtat am na xam boo xam ne boo waxee ñee da ngaa kon boobu rek la woon ndax loolu rek moo tax jullit mën a rey nit waaw boobu rek dafa ne bu ma ko waxoon ngeen dagg sama dox kon yeggoon na foofu waaye di fesutoon parce que jamono boo xam ne bu yonentu génne àdduna sa gars yi murtan nañ ñooñu ku leen mën a xeggale ci yàlla <laughs> foofu barabu raxas xol la waaye jamono Cheikh Tidiane yi barabu jublu yàlla la bëggatoo daray àdduna loolu moo tax a jug tariqa génne ci yow ngistal génne ci yow jublu leneen lu dul yàlla moo tax moom xaalam daf laa wax ne man bëgguma dara inna ma addoon bi lisaani sama làmmiñ laay ñaane waaye wax qalbi musaflimun lillah xol bi moom jébbalu na yàlla ma dara sàkkuma dara yàlla defal lu la neex dogalal lu la neex loolu moo doon jamono yàlla rek lañ bëggoon yuru dina wajhoo waaye jamono bàyyi jamono xegg ci yàlla la moom su ma ilayya marji'ukum la moo tax nii yegg ci yàlla fese si jamonoom fese wu ko ci benn jamono waaye amoon na ci jamono yu njëkk yi waaye ni jublu yàlla kese fese si jamono tariqa fesee koon si jamono yonent bi jamono yonent si julli ñi la bokk di maanaam boo dee ashhadu laa ilaaha illallaah ñoom seen kol sa xol yàllaa ko yore wa izaahu allaahi taala rek bool nañ la si lislaam xaalatil araab aamannaa yàlla ne gëmu leen de walaakin qulu aslamnaa xoolal loolu amugoo imaan sax yaa ngi bool nañ la si biir kenn du la rayete waaye tarixa amul loolu tarixa bu xol bi setul rek bokkoo ci dog nga bu yàgg kooku xol xol bi lay lay mais fee maanaam daf loolu lay génne ci jaamu leneen bàyyi nag moom amul xol bu set ak xol bu nangam de moom daa yegg ci yàlla rek is naa ni lay saa mbir nii ñaar bokkuñ ci maj suuf boo xam ne soobu waatu tegu ci sharia ak koo xam ne soobu na waaye xeggut ci yàlla lu xol bi jublu jublu yàlla na xeggut ci yàlla bokkul kon bàyyi moom amul xol bu set de xegg ci yàlla rek ñoo ñooy gaayam bi yaa ngi seel mën bëgg wax waaye ba ku lu seneen bi miqdaar lu nekk dafa am jamono nag yàlla yàkkamtu du yonentoo gën lu tax ñëwul si jamono yi xanaa ñu njëkk ñi moom dañoo perte waaw lu nekk dafa am waxtu wala nga ne ñetti wasila yi daal lii la ñuy islaam iman ihsan islaam moo leen génne ci jaamu këram heggal la ci jaamu yàlla xol bi di la setagul baax na ndax am na état buñ ñu soxla nag moo lay génn si jublu leneen heggal la ci jublu yàlla yuri dana wajhaw mooy tareexa googu ihsaan nag moo lay génne ci yëg leneen yëg leneen lu dul yàlla xeggal la ci yëg yàlla mooy maqaama baay bu nekk am na góor gu ko taxawee moo tax alquran di tagg wa axiré na ñu mujj ñe mooy ñu ahlu ihsaan mu ne yàlla yónn na yónantu ci ñoom maanaam xalifaab yónantu moo ñëw ci ñoom xalifaab yónantu boobu bu ko defee jàngale na yónantu jàngale na nit ku ñuul lay ndax ba ko yi laajee kan la Salman Faris rek moo fa nekk mu tee ci loxoom ne ko diine ji bu nekkoon ci biddu dana am góor gu bokk ci ñuul ñi dana ko jot bàyyi la de moom moom moom nga gis sa risaala ñuy junj borom xam-xamu Medina bi mu ne bis penc du taxaw mukk lu mooy borom xam-xamu Medina dana feeñ nit di dem ci moom duñ gis koo gën a xam ñi naan imam Malik la waaye imam Malik xam nga ne gars yi waxuñu moom xutbu zaman xutbu xam-xam si jamono bàyyi la yonente def ne gis koo gën a xam kon kooku mooy xutbu zaman jamono jooju kooku bàyyi la te ni gars yi dem ci borom xam-xam bu dëkk Medina ni bàyyi xamawut si kenn si taarix dégg moom mooy rajul boobu rajul ihsaan mu neex nit ñi a naqadi leen moom la ko yàlla def moom la yàlla waxoon ci alquran ne yàlla yebal na yonent bi jox ko ñaar bil huda ak wa diinil xaqi huda mooy shariatu diinil mooy xaqiqa mu ne dana feeñ ci kaw diine yëpp maanaam dana tasaaroo ci àdduna yëpp moo tax ba mu màkk loolu la xam mu ne fu weexu gërëm yegg sama diine ji dana fa yegg te boobu gërëm yi dañ daan tukkee maanaam fu jamono yëpp diine ji dana fa yegg ndax yàllaa ko garant waaye bàyyi ba mu ñëwee kóor kóor mu métti loolu xamu woon dara dafa ne fu diina ji yegg lislaam dana fa yegg tarixa bi dana fa yegg maanaam faydu bi dana fa yegg fu tarixa bi yegg di lislaam yegg fa rek faydu bi dana yegg dara mënu ko téye parce que yàlla garant na diinul xaq xaqiqa dana daj lépp kon ci moom la xaqiqa dajee mooy borom maqaam bi hmm? gis nga lii mooy lislaam nit ñi comprendre ba yàlla di bind li taxoon fuñ fuñ fuñ jëmoon fii lañ jëmoon yegg ci yàlla ku xamul diin la doo ko xam mais alquran juñ na ko si ñetti aay juñ ko tamit si benn xadis jaam bi jëgañ loo ma li gën la ma farataal ci moom du dañ di ma jëgalu ci naafila bi ma bëgg su ma ko bëggee nekk ko rek ñetti maqaama yaa boobu def farata yi mooy jàpp ci sharia dugg ci islam def naafila yi mooy jàpp wérd sëriñ si Seex Umar Fuuti waxoon na la naafila si waaye neel wérd Seex Tijaan waxal loo rek mu jeex léegi bu la yàlla bëggee nag daf lay xam mat sànni la ci bàyyi nga yegg ci faytu mu nekk la nag yàlla nag ku dëgg yàlla ku bëgg a taxaw di misaal di salaal te yàlla nekk gul la da bëgg a nar rek xaal boo yëgul nga bëgg ko leeral fen rek dir xaal boo yëgul noo koy ne yow yàlla la nga bu yàlla nekkee nu mu mel te nekk gul la fen rek moo tax ihsaan tamit ku ko bëgg jàngale te dundoo ko fen rek ndax ihsaan ay yëg-yëg la yonentu def ne jamono booy booy gis yàlla ni ngay mel boo jàmm yàlla mel noonu teew gisagoo yàlla kon xamagoo xamoo booy gis yàlla nooy mel di kon nooy jàngale ihsan nar rek nar rek ku bëgg a nar daal taxawal di xamle ihsan te dundoo ko ku bëgg a nar taxawal di xam xamle nan la yàlla di nekkee nit te dundoo ko waaye dundee moom xam ko kon foofu xegg xam la comme tàngal la mënoo misaal nit ñi li muy saf ku ko màcc rek xam ko xaal boobu nag mooy xaal yi ñu mooy xaali xegg ci yàlla su ko defee yii mooy wasila yi ñett ñi ñooy ñetti góor ñi keneen koo toppit bu dee ci lislaam nga ko topp yonentu rek mooy sëriñ ba waaye mooy sa bunt ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam kon xoolee ko comme yonentu moo tax tari moo tax mazahib beeg yooyu yëpp ñëw nañ gën naa ko leeral lu bari waaye yonentu rek lañuy ñuy joxeñ waaye koo topp ci tarixa yi Cheikh Tidiane rek la lay joxoon waaye moom mooy sëriñu tarix bi de keneen ku moom wasila la rek waaye mooy Cheikh Tidiane koo topp nag ci faydi it baa rek la lay joxoñ wasila la rek dégg nga waaye mooy sa ci baax wala ñett ñi ku topp am lu baax ngi gis mbir mi du mën ñàkk li taabi ñeen aji topp mu topp almat bon ka ñuy topp yow yàlla laa bind pour nga toppi foo nga topp ñii na ngay topp pour egg ci yàlla mbo gaal gi nag saa yu départ am ñu wadd ñooñu leen tuddee wahabi yi wahabi yàgg na fi gaal gi ci yonent yàlla Moussa yowut yëpp gëm gi ne gaal gi ne fël génn duggaat ci beneen géej rek yonent yàlla Isaa ne tëll fekk mooy ma xaama ba rek ma xaama ba ne waaye waaye yëre yee soppeeku nasaraan yi génn ne gëm nañ yahudi ne soxor ñëw bañ ñëw xibaaru ne yéen ne réer affaire bi Moussa la di ñu ne baatu yahudi ay baatu lañ di ndax ne ab yonent lañ gëm gaal gi ne tëll tàbbiwaat ci beneen géej yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn yëre ba ñëw bañ ñun gëm nañu Iisaa waaye gëmuñ kii kii dafa réer loolu la xibaar yaa ngoog yonentu ne tël gaal gi teer yi ca géej ak wilaayatu Cheikh Tidiane ne pël ibaad yi ne shirku bokkaale bidaa weddeet na gëm na yonentu waaye kii moom wël bi moom gëm waaye gaal gi na tël géej lab ci géej ak xaqiqa bàyyi ne tël ñenn ci tariqa ñu jàpp gëmoon tariq ne kii moom gëmuñ ko ñun Cheikh Tidiane lañ gëm kii gëmuñ ko wedd nañ ko <laughs> ah ibaadu lay na ñoom ñoom ibaadu lay na saa yu maqaama demee ibaadu yu bees feeñ yàlla ñu gëm ñun yàlla loolu la yàlla wat wat wa tabaxu nuur am na ñoo xam ne ñoom leer gi la topp rek fu ñu ko gis ànd ak ñun waaw am ñoo xam ne jëmm yi lañuy ñuy topp moo tax su yëre yi soppeekoo rek kiiraay dugg leen ñu réer ñoo ñooy ibaadu yi. kanaa xamoo ne fi mu nekk am ñoo xam ne ñu ngi taxaw contre ibaadu yi gëm Cheikh Tidiane. noonu lañ contré Baye te Baye di xalifa Cheikh Tidiane nga xam ne su su kër ji mos na ko bind lettre lettre wax ne Baye dafa toog xaatir si xaatiram rek ne day tukki loolu maa ngi ko déggee si sama borom ji ne day tukki dem faas su kër ji gis Cheikh Tidiane moo wax ko ne bind Baye lettre mu ne ko yow mi ma doon te yelloo maqaama bi lool axi xudduuma ka tukki gi nga bëgg tukki ñëw gi nga bëgg a ñëw yéexe ko maanaam xaaral ba njàqare yi dañ xam nga bu dee yow la yàlla rusee nit ñi bëgg a wàcc mbugal foofu yow nga far génn ci barab mbugal mu defee ñëw sax ci ko xaaral ba njàqare yi xew foofu ci jamono jooju dañ nga door a ñëw te bàyyi waxut ko de waxut tukki mi de daf koo xaatis ci xolam rek Cheikh Tidiane feeñu sukkeeri jënd ko bindal sama sof bi leetar saxaral ko ne ko moo ma doon xelloo na maqaama bi waaye ñëw gi mu bëgg ñëw na ko na ko na xaar parce que barke la ci fa mu nekk kooku Cheikh Tidiane moo ko seedeel wilaayatu seedeel ko xilaafatu am ñu ko bëgg ba pare seen sëriñ yi sax nangul bàyyi xilaafatu ñu far bañ bàyyi <laughs> xam nga loolu mooy épassé rek <laughs> gisoo la waaw noonu la yow nag bu la yàlla dimbale da ngay gis ba nga bëgg yàlla rek leer yàlla fu mu fekk nga bëgg ba bañ a soxor egg ci yàlla moom ci bàyyi rek kon ku nekk rek war na di topp ñu baax di liggéeyal sëriñ si nag waxat kaana nekkoon ne nabi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam min daan yax du moom bu koy liggéeyal yonent amoon na ko doon liggéeyal boobu moom anas bun malik al ansari mooy anas doomu malik al ansari wajadoo fekk na ko nabi yonent bi sallallahu ba muy liggéeyal yonentu dix ans amoon toog nekk ak yonent di ko liggéeyal waaye nag kenn bu ko xam kenn bu ko wërsëg it ndax barke nekk ak yonent bi sallallahu alayhi waxat kaana nekkoon na laqat kaana nekk na lakum ñee leen uswatun roykaa xasanatun bu rafet fi rasulillahi ci yonentu yàlla bi kon nag yonentu mooy roykaa bi ndem nit daan na bàyyi lépp di liggéeyal yonentu rek kon nit war naa bàyyi lépp di liggéeyal kama qaala kon nu mu wax baadul masaayix ñenn man zaharat ku feeñ na wilaayatoo wilaayam wajabat war na xidmatoo liggéey ko ku wilaayaam fees fees war nañ ko liggéeyal loolu mooy dëgg de ku am wilaaya ku nekk rek ku ñu war a liggéeyal la ndax kooku yonantu moo feeñ ci moom sallallahu alayhi wasallam te yonantu ku ñu war a liggéeyal te boo ko liggéey rek te yàlla tax gis barke ba in uridu al islam astata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh